rencontre bi nga xam ne nii liñ ci jublu mooy ñu seddoo xayma également jéego yi ñuy def ci programme bu rëy bi nga xam ne daf ko laal ci ndigalu chef de l'état président de la République pour ñu fexe ñu génn xale yépp ci mbedd bi rawatina pour ñu aar leen ci jamonoy mbas mi. programme boobu bi ko ministre bi lancé ba léegi ànd ceeg jëwriñ naataanga jëwriñ yi nga xam ne nii ñoo war a wàllu intérieur kaaraange réew mi.

amna gën gaa néew juróomi xalé yo xamné ni ne jël nañ leen ci mbedd bi ci situation ni ne yu doyoon waar la donc ar nañ leen ci jamono mbass mi mais aaree nañ leen ci bépp xétu faagaagal bu leen mënon fekk ci jafe-jafe mbedd mi euh, ci juróomi junney xalé gën gaa ndaw ñetti junni delu nañ ci seen waajur yi te gouvernement bi mo ci lëkkaloo acteur yépp bu xalé jogé Dakar wara dem Thiès wa Thiès ñoo gassandi ci CDP non lañ ko defee ba xale yi seen waajur yi tey nag ndaje bi pour xayma li ñu am ci ci jéego ci biir dakaar la dakaar nag liggéey bi mu wane lu am solo la gouverneur bi jiite ko ci anam yu rafet ak ci xarañ ànd ceeg ñeenti préfet département yëpp Guédiawaye Pikine Rufisque ak dakaar ñoom def nañ liggéey bu rafet boo xam ne dañu recensé daara bi ci yi nekk ci gox gi ak gox-goxaan yi def cartographie xam nu daara yi tooge pour mun a ràññee daara yi nga xam ne nii ñu ngi góorgóorlu sax ca cosaan ak li islam digle di yar xale yi di leen jàngal diine mais tax na ñu ràññee daara yi xam dañuy mbooboo diine ak daara mais la fa nekk ca dëgg-dëgg jaaduwul sàkku ja def xale yi jafe-jafe la wala exploité xale yi la euh, loolu ñoom am nañ lu gën gaa tuuti lu toll ci euh, ñaar fukki junni ak juróom-benn xale ñoom gi gën nañ ko ci recensement boobu et ci liggéey bi ñu def nag pour gën xale yi ci mbedd bi gën gaa tuuti tey ci biir dakaar gouverneur rapport bi ñu présenté waaye ne ñaari junney xale dellu nañ ci seen njaboot mais tam ñu jàngat ci ne am nañu commencé génnaat te ñooñ mun na am condition yi xale nekk wóorul ak mbas mi mais tam jaaduwul ak ak yelleef xale yi gouverneur bu rafetlu liggéey bi mais également engagé wu na ci kanam le ak ay naataango préfet yi pour ñoom ñu gën a baral jéego yi jàpp lépp loo xam ne ni gàllankoor la bu ñu gisoon tam pour ñu gën a gaawal opération yi pour génn xal yépp ci mbedd rawatina fii ci biir Dakar yoo xam ne capital mais fexe itam ba nga xam ne li ci war ci yoon taxawaay wax na tolérance zéro maanaam ñu bañ a bàyyi kenn mu def sa def noonu xale yi et loolu dañ ci taxaw temm pour loolu jeex fii ci capital bi mais tam mu jeex Sénégal. ci et bu soobee yàlla dinañ jéem a li nga xam ni mooy réussite satisfaction ñu jéem ko consolider. à travers plan d'action bi nga xam ni moom mooy li nga xam également moy ay contraintes ay difficultés euh, objectif yi nga xam ni atteindre luñ ko dinañ ko xool moom aussi càmbar ko ba defar plan d'action bu nga xam dana permettre ñu rectifier loolu lépp. Euh, am na yu mag yu am solo luñ ci def euh, xëy na jeexagul du ñàkk ku dox di nga gis taalibe xëy na wala yooyu. mais loolu lépp dinañ ci liggéey département boo dem tey CDP e ba taxaw na nit ñi jàppale ko collectivité territoriale jàpp ci ba ñu am une cartographie des daara recenser len ñi nga xamni ni nañu volontairement après discussion ñu nangu ñu yobbu xalé yi lolu def nañ ko ñi nga xamni également résister nañu waye gis nañ ni daara yoyu nit mënu fa évoluer ñooñu tam jël nañu xalé yi delloo nañu len ñi ci dess nak moy ñi nga xamni xeyna jouer nañu euh, d'intelligence de manœuvre d'artifice ba suturé réew ci euh, action bi nga xam ni moom la état déroulé woon à travers initiative zéro enfant dans la rue ñooñu nag defee naa ni ñoom ñoo commencé génnewaat xale yi parce que am na ñu bëre dañu leen confiné woon ci daara yi évidemment ñu leen di jàppale ci euh, affaire u vivre yooyu léegi prochaine état bi nag mooy nag euh, jublu ci mbir ñi nga xam ni commencé nañu génnaat ca fële waxoon nañu zéro enfant dans la rue mais bi yoon dañuy wax tolérance zéro pour que ñu mën a gisati xale yu taxawaalu ci mbedd bi. nak liggéey bi du jeex ndax euh, bo né jooni rek yi nga xamni ni nañ leen xeyna na jooni yu dess yoo xam ni dinañ génnaat tôt ou tard dinañ su dé sax commencé wu genn légui nak objectif moy songu ñooñu nga xamni euh fexe woon nañu ba suturé wu ci action état bi pour que bi yoon ñooñu baña euh recc ndax euh, euh, liggéey bi moy baña bayyi xalé yi di taxawaalu ci mbedd bi même bu Covid amul lolu dafa jaaduwul donc inshallah dinañu liggéey à atteindre cet objectif en relation ak ministère bi nga xamni mom mo yor liggéey bi ak yeneen ministère yi nga xamni également war nañ ci duggal sen loxo.